ñu ngi leen nuyu di leen sant mbokk yi ñu ngi fii en plein cœur de Sandaga fi ñu nekk nag euh, mooy ministre de l' intérieur gis ngeen ko nii sama ginnaaw euh, ki ñuy seet si tey mooy ministre de l' intérieur Mbaye Ndiaye ki nga xam ne moom la ñu dénk kaaraange réew mi ak lépp daal loo xam ne euh, mooy sécurité kon doomu aadama yi nga xam ne ñooy yeewoo ba bu yàlla sàkk fii ci suñu réew di Sénégal Mbaye Ndiaye nag moom moo am moom lañu am mbégte dalal tey suñu biir émission fas yéene waxtaan ak moom li nga xam ne moo yëngal euh, actualité bi fi mu nii nekk inondation yi nekk également suppression Sénat bi te bi xam ngeen ne euh, ñu bëri nee nañu moom lañ ko namoon a jox moom Mbaye Ndiaye naka la dundee bi ak également euh, seen compagnonnage ak seen alliés yi nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ak tamit conseil économique et bi nga xam ne fan yu néew moom la ñu fas yéene tabb kon ña fay nekk ak yu bëri daal yoo xam ne fas nañu waxtaan amee loolu ak sunu gan tey di ministre de l'intérieur également dinañu waxtaan ak euh, tamit l'homme politique mbay Ndiaye mu mel ne daal kon tey face to face euh, lu bari moo nar a nekk ci biir te loolu nag bëgguma ngeen raté ko bëgg naa ñu ànd ma nag yéen ñu xoolloo nag li nga xam ne mooy ministre de l'intérieur fii si ginnaaw euh, ñu ànd def visite guidée ak ministre bi en personne tout de suite lay doon ngeen topp ma ñu ànd dem mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen sant ñu am mbégte euh, ñëw nag fi nga xam ne euh, yaakaar naa ni sénégalais yëpp xam nañ ko te ku ne bëgg nga fi dugg ndax mooy ministère de l'intérieur gis ngeen fu ñuy jaar yëpp balu ñu fee ñëw ndax fii euh, mooy centre névralgique bu état ñu am nag mbégte jàkkaarloo ak monsieur le ministre Mbaye Ndiaye monsieur le ministre ñu nuyu la ginnaaw bañ a remercier ci disponibilité bi nga am ci waxtaan ak sénégalais jaare la ko ci télévision Futurs Médias ne jot bi néew na rawatina guddi ñu toll euh, ñu lay jaajëfal nag ci euh, privilège boobu nga ñu may ñu bàyyi la nuyoo ak askan wi lay seetaan. asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, xanaa sant suñu borom tabaaraka rek moom mi nga xam ne moo jox ndam président Macky Sall mu nekk président de la république may àndandooram mu tànn ma dénk ma doxalinu ministère de l'intérieur Euh, ñu nekk fii di di jéem a góorgóorlu pour lépp li nga xam ne mooy suñu mission ñu def ko pour njëriñu Sénégal euh, looloo ñu fi teg maa ngi sant ñëpp di noyu ñëpp di gërëm ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah voilà monsieur le ministre kon euh, ñu door rek euh, émission bi euh, tey moom daanaka ministère bi jamono yi ñu toll li fi ñëw ci ay doomu aadama bari nañu ndaxte gis nañ ne chaîne de solidarité bi nga xam ne tàmbali na ay bës ngi ba léegi mi ngi wëy et que fii nga xam ne mooy ministère de l' intérieur bi ñu la dénk mooy réceptacle bi donc plan ORSEC fi ñu toll nii est ce que mën nga ñu defar benn bilan un bilan d' étape wax tuuti li nga xam ne mooy don yi sénégalais yi di yónnee fan la tollu jamono ji ah, di sant yàlla rek depuis euh, mbënd mi ànd ak euh, taw yu bëri yi ñu fi enregistré depuis le 26 courant euh, Sénégal yëpp tey dañoo jóg nekk benn pour jàppalante jàppale seen bopp jàppale seeni moroom yi nekk ci ay jafe-jafe jàppale àndandoo ak gouvernement Euh, ñooñu nga xam ne tey jii ñu ngi vivre ci ay jafe-jafe ñu tudd leen ay sinistrés jàppale également gouvernement ci jumtuwaay yi nga xam ne yëpp euh, mbënd mi yàqale na ko pour mu taxaw pour defaraat ko mais jàppale gouvernement également que mu bañ a nekk rek ay jumtuwaay yi ñu fayee jafe-jafe yi mais jàppale gouvernement pour que ëllëg ak si biir même bu fekkente ne taw yu toll noonu dal na ci réew mi jumtuwaay yi nga xam ne moom lañ fiy teg dana wàññi lool doole euh, ndox moomu ba jafe-jafe yi euh, waxuma ne dana jeex parce que il faut que mu nekk programme bu gudd bu yàgg boo xamante ne bii euh, mooy permettre à ce que ñu fànq lépp luy mbirum mbënn ci Sénégal donc looloo tax li gouvernement prévoir ci budget ak solidarité nationale euh, réew mi yëpp kenn ku ci ne li muy joxe ci lañ ko nar dugal incha allahu rabbi di lu nag taxawaayu kenn ci réew mi moo joxe euh, coup d'envoi bi muy euh, xalif généralu Touba sëñ Sidi maxtar Mbàkke yal na ko fi yàlla yàggal te mu wér kooku moo njëkk a dugal loxoom ci poosam Euh, ne président la république gouvernement xam naa ne moos yéen a ngi góorgóorlu ci mbënd mi mais dama bëgg a joxe man sama participation mu mel ni rek yàlla euh, dafa dugal loxoom suñ borom tabaraka taala ci boobule geste bi xalif général Tiwaawoon euh, Touba njëkk a def sëñ Sidi Maxtaar Mbacké ba tax na depuis lors Sénégal yépp a jóg muy ndaw muy mag jigéen góor ñépp a jóg dugal seen loxo ci mbiru mbënd mi euh, loolu nag tax na tey gouvernement li mu prévoir woon ci ñaari anam euh, budgétisé euh, pour prise en charge mm, mbiru mbënd mi d'une part mais d'autre part mu amoon beneen enveloppe boo xam ne fi la desoon 2011 ci affaire mbënd mi donc ñaari budget yooyu la ñu boole prévision yooyu euh, lii ci yokku tey bëri lool chaque jour ñu ngi recevoir xamaguñu ñaata la parce que euh, ñi ko joxe dañoo bëri ñii ñu ngi adressé wu directement ministre de l'intérieur ñii adressé wu premier ministre ñii adressé wu yeneen structure d'accueil ñii di envoyé directement ci compte yi nga xam ne dañ ko ubbi donc tey jii mënaguma wax euh, ñaata moo dugg ci euh, budget ci euh, compte état bi en tout état de cause lépp ci compte état bi parce que état moom rekk a am droit recevoir xaalis donc compte yi ñu ubbi ñu ngi koy alimenter de manière directe bu indirecte li ma bëgg wax rek waa Sénégal moo di ne bépp alal bu dugg fii incha allahu bi danañ ko ñoŋal danañ ko yóbbu fa la tax mu jóg donc jàppale ñu ne ci jafe-jafe euh, defar li yàqu ndax mbënd mi yàqu ko ak aar également ngir ëllëg Euh, jumtuwaay yi nga xam ne am nañ ko pour dëkku euh, problème mu taw yi muy les stations de pompage ak lépp loo xamante ne lii mooy ñuy jàppale ñu jóge ci jafe-jafe yooyu nag di wax toujours ne titre président de la république ak premier ministre